gars yi ma gërëm leen sant leen bu baax a baax ànd beeg Aladji kii TV ginnaaw bu ma leen nuyoo ànd boobee am na solo ànd boobee ñi ngi ñaan mu jëm kanam ci information yu wér te wóor yi sa mbax loo na tey information yu bari yoo xam ne gars yi taataan ko nga neel lay doon ginnaaw boo defee sab abonnement ndax abonnement bi mooy tax suma ma coppatee dara mu ne coow ci sa kanam bu ko defee nga man koo sol salaatoo mu am solo bu baax a gaax gaa yi saf bi moom muus te yeewu démb match bi nga xam ni Barcelone wala boog bërki dée mu doon na ko football loolee dama ci bëgg andiwaat ak arrière goo xam ne damaa gis mu def xelum mag moo xam ne daanaka mag mën naa bàyyi ci dëkk gone yi bi ñu demee bay dugg ci deuxième mi bi kenn kum ci ne mu kott la nabb nabbe la conseil la lim lay conseil ci li nga xam ne mooy wàllu football bu ko defee boo duggee ci biir terrain bi ndax moom safi bu daan jigéen ak Iniesta na mu daan def daan jaxase carte gi ah, bi jëw ak gàttaay bi mel ni ko daan lijjanti loolu la digal gone yi Cancelo ak Sao Félix ba ki li nga xam ne ah, daanaka mooy Arda Guloor moom it daanaka mi ngi euh, continuer di def li nga xam ne mooy ak tàggatoom ca beru jeexal gi nag daanaka fi mu toll nii matal na ko li ko dese séngam bëreetul nag mu jóge foofee euh, ci beru bu ko defee nag di ànd ak entrainement normal mën a dellusiwaat xel meeg lépp jaar na yoon kii di Real Madrid équipe yi mu war a dajal équipe yooyee euh, daanaka ñi ngi taxaw ni temb di ko xaar ci njeextalu saison bi naat mi ngi ci équipe yooyu nga xam ne war na ak Real Betis ak équipe bi nga xam ne mooy Hertha Berlin nga xam ne Villarreal ak Alaves loolu lépp di juróomi équipe yoo xam ni bu ci ne Real Madrid war naa mën a doxantoog ñoom ndax lu mën a am foofee ñu bàyyi xel match yooyu ndax dana nekk match yoo xam ni yu ama am solo ci njeexteelu li nga xam ne mooy Real Madrid classement FIFA maanaam équipe bi nga xam ni moo ëpp doole ci àdduna wala ah, ah, bi nga xam ne Sénégal kàpp ba tey uh, fukki équipe juróom-ñeent ñoo ko raw ci la bokk Maroc jël na fukki place ak ñett uh, ci wàllu classement mondial bu ni Maroc ak Sénégal ex aequo la ñu def maanaam uh, ñoom ñaar daanaka ci gàttal maanaam dañoo rawantiwul lu bari maanaam Maroc ko raw Sénégal moo topp ci moom waaye ci stade la joor ngeen doon ko suivre daanaka ci Aladji Malick TV match boobee jeex na tàkk Sénégal moo gagné ñeenti bal ci dara ci équipe bi nga xam ne mooy Égypte kon Sénégal da koo tëcc waaye nag ci kanam tuuti fi ak fan dana dajewaat ak Égypte loolee ca Caire lay doon ñu bàyyi ko xel.